temps ñu bari dañuy témoigner. Mhm. de la de la profondeur de la relation entre daaw da ak Macky Sall. moi je peux en mu nekk une relation boo xam ne. dafa dépassé dafa dafa dépassé politique. moo tax moo tax nit ñi naan. Mhm. Macky Sall tey bu doon bu bu nekkoon benn cër. Mhm. mu di ko joxe. mën naa am sax looloo ko ko xañ xaaral mën naa am sax looloo ko ko xañ mu nekkoon benn cër mu di ko joxe. Ah. xolam Ablaye Daouda. la koy jox. mais Macky Sall il a toujours dit aux gens. je ferai un choix de raison un choix réaliste et je miserai sur le candidat qui a plus de chances de nous faire gagner. mais nangul naa ko ko. rek alors ñu sondage yi ñu doon def. bàyyiloo ko eh, sondage boo ko wax sondage naa la génneel sondage yoo xamante ni. le président il a il a il a eu des sondages il le terrain. Mhm. Ablaye Daouda même venait en troisième position. le premier c'était Amadou Ba le deuxième c'était Mohamed bun Abdallah Dionne Abdoulaye Daouda venait en troisième position tout Benno presque tout Benno ñoom ils ont voté Amadou Ba euh, dans le parti bari na ci ñoo xam ne tey leur ñoom dañoo jàpp ne Ablaye dañoo jàpp ne Amadou Ba était le meilleur profil pour pour pour gagner te l'autre handicap de Ablaye Daouda c'est que Ablaye Daouda il n'a jamais pensé à se présenter parce que moom jàpp na ne Macky Sall day dem moom préparé wul cette ambition. et donc am na kon Amadou mi ngi doon préparé kon Amadou dafa doon préparé wu. am na terrain boo xam ne. non dama lay laaj préparé wu ko. et donc dama lay laaj est-ce que kon ñeneen ñi dañu doon préparé. il n'était pas prêt. kon ñeneen ñi dañu doon préparé. est-ce que non damay laaj est-ce que ñeneen ñi dañu doon préparé. xam nga tout dépend. des fonctions yi nit ñi am. non c'est que may mën a fonction Ablaye Daouda fonction yi ma am kenn am ko ci. ci ñoom ñëpp. les fonctions qu'il a eu toog na fii nee na. oui doo jublu sa fin de mandat. nga jël nit def ko premier ministre. Mhm. ñu war a tànn candidature nga jël ko teg ko fa. léegi ah, léegi Ablaye euh, Amadou Ba ba muy ñëw en septembre. Mhm. xëy na Macky Sall ci xelam. Mhm. jàppoon na ne bu waree dem. Amadou Ba mooy. waaw léegi candidat waaw léegi wax nga déglu ma léegi waaw léegi déglu ma léegi xam nga da nga ne Madiambal toog na fi wax. Ah. man tamit toog naa fii nga déglu ma. Ah. parce que c'est pas parce que Madiambal li mu wax du Coran li may waxee du Coran moom day wax moo wax baat ak baat la moom loolu la wax man damaa jàpp ne doo jël nit aussi def ko ministre du budget def ko ministre des infrastructures def ko ministre des finances euh, def ko euh, ministre du budget ministre de l'intérieur ministre des infrastructures jël finance ak budget pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal boole ko nga jox ko ko def ko. Euh, bul fàtte ne bu njëkk ministre d'État waaw déglu ma rek déglu ma def ko ministre d'État waaw danga may déglu rek danga may déglu rek def ko ministre d'État directeur de cabinet du président de la République mu jóge fa nga def ko président conseil économique social environnemental te amoo ambition pour moom loolu tamit moo wax la ko di la ko opposé à ça beneen bi mooy xam nga ay waxu sondage mooy mun a man je de la l'APR xam nga yow boo wax la majorité de la l'APR yow man maa war a wax la majorité de la l'APR parce que li ma ci xam xamoo ko ci journaliste nga naam waaye am na loo xam ne maa koy dund am na loo xam ne dans la coalition maa koy dund je suis dans l'APR depuis 2012 je suis dans la coalition benn Bokk Yaakaar et j'ai des responsabilités dans ces structures donc xam naa nit ñi lan lañ ci nekkee xam naa lan la nit ñi ñenn ñi di xalaat damay waxtaan ak nit te xam naa exactement fan la ñuy doxale donc loolu ngay wax noonu waxu sondage bi ñuy dem aux élections législatives yi passées locales dañu defoon sondage bi ñu boolee ñu ne Mburoog Sow Thiès ñu def sondage ne dañuy am 85 pour cent xam nga ñaat la ñu am 21 est-ce que 60 pour cent de euh, kii nu ñu koy waxati euh, marge am na fen pour te dire que sondage au Sénégal. Macky Sall daal non déglu ma non attends non non déglu ma sondage au Sénégal teguwul fenn et yow li ngay wax ni ay info yoo for la président musulaa wax déglu ma ñeme yàllaa tax déglu ma nga naan ay sondage yu président mais président mosoo gis sondage am beneen bi mooy élection présidentielle yi ñu ñëw. c'est élection fu leer la ko waaw mais da may déglu man waxuma tegu waaw man waxuma tegu ko déglu ma waxuma tegu ko fu leer mais dama lay wax man jusqu'à présent Maïmouna waxuma dans la ci ay subjectivité man dama lay wax ay fait xam nga dañu wax waxu Abdoulaye Daouda ma wax la exactement lan moo tax ma jàpp ne c'est le meilleur profil muy benn beneen bi mooy nga wax sondage ma jox la des exemple précis yoo xamante ni pour te dire que sondage nañ ko teg de côté beneen bi nga xamante ni moo laay joxe am exemple mooy élection yi ñu jëm élection la boo xam ne c'est inédit mosul am au Sénégal parce que c'est la première fois qu'un président de la République organise des élections bokk ci Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Ablaye Wade defu ko te sondage ak comportement électoral de l'électeur c'est scientifique da ngay am loo xamante nii moom ngay sukkandiku pour mën a def évaluation et def des euh, prospectives mais ça va être compliqué maintenant li nga xamante nii moom moo am solo mooy dañu toog def analyse xool exactement le contexte mais au-delà des ambitions personnelles présidentielles que Abdoulaye Daouda avait wax nga ko léegi il ne s'est jamais projeté il ne s'est jamais préparé mais c'est un homme politique koo xamante ni il a toujours porté son choix sur le président Macky Sall mais en travaillant aujourd'hui au niveau de la base et partout dans le Sénégal mais jamais se projeter au-delà du président parce que ñun ñëpp à part ñi nga xamante ni dañ doon def peut-être lu ñu lu ñu nëbb man loolu yëguma ko. mais Macky Sall wax dëgg boo ko xamee nga wax ko aussi baax na sénégalais xam bu fekkee loolu am na mais Abdoulaye Daouda Diallo comme man comme ñeneen ak ñeneen jàpp nañ ne président Macky Sall dafa war a présenter wu en 2024 président a décidé ne moom il ne se présente pas mais comme ni ma la ko waxee Abdoulaye Daouda militant la comme ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais ñun ñu jàpp ne. moom comme président choisirul war na mën a porter Benno Bokk Yaakaar pour que ñu gagner ces élections loolu noo déglu ma rek xam nga loolu aussi c'est pas une question que il se prépare non parce que aussi la loyauté voudrait que su fekkee da nga nekk nit aussi mu nekk di liggéey te pareegul jàpp naa ne am na loo xamante nii waroo ko def tey yow fii nga toog nii rek nga xam ne du politique yow yaay boroom kër gi nekk directeur général boo déggoon ne am na xale boo xamante ni mi ngi lay bëgg a wuutu du fanaan parce que aussi c'est comme ça aussi. la vie donc moi je pense que. il faudrait que est-ce que jàppoon ne est-ce que jàppoon ne ñett yii moo tax. Abdoulaye Daouda Damono Abdoulaye Daouda c'est un homme politique très réaliste. et très politique. alors benn bi c'est le poids de sa relation avec le président parce que bu continuer woon ce serait une rupture moom ak Macky Sall et une rupture qui pouvait être douloureuse. Euh, beneen bi. mooy ne. il a compris qu'il n'avait pas la faveur euh, de l'APR et de Benno euh, Benno et de Benno Bokk et de Benno Bokk Yaakaar euh, pour cette euh, candidature la parce que yaa ngi naan parti bi yënguwul seen parti bi en réalité et je dis ça souvent aux gens de l'opposition qui disent que APR mu ngi tas ma attention APR ils sont dans une logique de survie dañuy booloo bokk xeex ensemble kan moo dem Aly Ngouille moo démissionné ne àndu ci Mame Boye Diao moo confirmé sa candidature mu ne àndu ci Youssou Ndour moo quitté te quitté na avant tout ça euh, jëlaat yoonu boppam Ablaye Daouda n'est pas finalement parti et je je vois que samedi les gens étaient étaient délivrés parce que am na ñoo xam ne même bu ñu àndul ak Ablaye Daouda ils auraient été tristes que Ablaye Daouda demal boppam wala mu quitté parti bi wala mu am rupture entre moom ak ak ak Macky Sall est-ce que finalement Abdoulaye Daouda xoolul xoolaat mu jàpp ne son heure n'a pas encore sonné mu renoncer et il préfère retrouver euh, le président Macky Sall. may mun boo bëggee dégg-dégg. Hmm. on a pensé que Abdoulaye Daouda bu demoon ci élection 2024 da koy gagné muy benn. avec quel appareil waaw déglu ma rek. et avec quel homme ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma da laaj da ngay déglu euh, muy benn beneen bi mooy xam nga. analyse li tax ab daaw Daouda jël cette décision historique que nous yow que tout le monde parce que gis nga comme ni nga ko waxee léegi yow ci sa bopp yaa ko wax euh, effervescence bi nga xamante ni def na xalaat bi nga xam ne def na ko délivrance bi nga xamante ni am na ci mais loolu ça montre que c'est quelqu'un qui compte dans ce pays c'est quelqu'un ku am une envergure nationale dans ce pays c'est quelqu'un ah, ce pays je dis bien. et dans le paysage non, dans politique. le pays. je dis bien dans le le paysage politique. dans la, la délivrance n'était pas nationale non dama ne dans le dans le pays. Ah. c'est quelqu'un qui compte ñi ko bëgg il compte ñi ko bañ il compte là sa c'est un beneen bi mooy dans son discours le président a fait une analyse objective de la situation et avant boobu waxtaan naag président de la République ñett yoon. il l'a reçu aussi avec un groupe et aucunement amul waxtaan boo xamante nii gis nga ko sur la place publique ça veut dire que Abdoulaye un homme d'État boo xamante ni moom ak Macky Sall xam nañ exactement il n'est pas ah, ma rek loolu beneen bi mooy li nga xamante ne nii moom la wax dans son discours may mun a nit mën na ko dégg d'abord y a ses avec le président qui ne date pas d'aujourd'hui wax nga ko léegi Sénégal yépp xam nañ ko beneen bi mooy mu analyser ak le président il l'a dit dans le discours que li nga xamante ne nii moom moo per pouvoir yu bari muy le pouvoir du PS muy le pouvoir du PDS c'est la multiplicité de candidatures boobu di benn beneen bi mooy mu jàngat ne réew mi toll na foo xamante ne ni ak la sous-région situation sécuritaire bi doy na waar doy waar goo xamante ne ni waruñu mën a ñi nga xamante ne ni c'est des wax na ko dans le discours kawo kese la ñuy lijjanti waruñu leen a may porox ndoll parce que bu fekkee ne tasaaroo am na boo xamante ni nii dafay may ñenn ñi nga xamante ni bugguñu dara lu déstabiliser Sénégal déstabiliser Afrique loolu aussi makk na paramètre bi nga xamante ne ni bokk na ci li tax mu indi ko à réfléchir encore avant de prendre la décision d'aller aux élections présidentielles et loolu il faut être un homme d'État il faut être quelqu'un de républicain il faut être un patriote pour mën a xalaatee noonu beneen bi nga xamante ni moo am ay xaritam ay kilifa ay nit ñoo xamante ni bëgg nañu réew mi bëgg ànd am bëgg jàmm am waxtaan nañu ak moom waxtaan ak ay collaborateurs pour que ñu toog waxtaan moom ci boppam il a eu la responsabilité waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy ay collaborateurs ku ci nekk wax xalaat muy son cabinet politique muy son cabinet ñi nga xam ne ñoo koy jàppale au niveau de Podor muy ñi nga xamante ni ay personnalité lañ àndoon ak moom di liggéey autour de sa projet ku nekk wax xalaatam ba dans son discours yaa ngi dégg sax mu ne y encore des résistances au niveau de sa candidature même après bi ñu analyser loolu lépp il a décidé souverainement de renoncer à sa candidature pour soutenir le choix du président de la République. loolu c'est je pense que très risquée. mais déggoo li ma la wax xam nga. dans la vie très risqué dans, dans la, la vie, mesure bi nga xam ne moom mooy le coordonnateur départemental qui compte vingt deux communes vingt deux maires ñenn ñi nekk des maires des DG ñenn ñi nekk des maire euh, euh, des des ñoom moom amul soutien wu noyau. c'est totalement faux. ah c'est totalement faux. contredis-moi avec des ma dugg ci ay détails mais c'est totalement nga sànq wax naa la. donne-moi des preuves waxu c'est totalement faux. yenn maire ak Podor ñoo àndoon dans wax ma yenn ma non ma dugg ci détail parce que dafa am loo xam ne non xam nga lu tax je ne pas circonscrire. Ah. Abdoulaye Daouda à Podor ngay wax parce que Abdoulaye Daouda xam nga non Podor xam nga mi lay wax xam nga sànq dama la wax ne la parce que quelqu'un m'a dit oui la commune de Boké yow sa bopp nga ne mënoo génnal foofu parce que polémique bi nga bëgg a dugg xam naa ko dama dugg ci détails yooyu parce que Abdoulaye est très loin de ces de de de de de, commune ou de département aujourd'hui je pense que ce qui nous a intéressé c'est un projet boo xam ne dañ ci doon liggéey pour dem vers l'essentiel c'est-à-dire aller à la conquête de suffrages des Sénégalais on travaillait sur ça donc moi je pense que risque bi ngay wax gis nga dans la vie nit ki di nga toll foo xamante ni il faut prendre ses responsabilités et faire face à son destin Abdoulaye Daouda jàlla a compris cela mais comme je vous l'ai dit le président de la République ñun ñëpp mooy suñu kilifa on a avec lui un compagnonnage boo xam ne dafa rafet am ak moom ay xalaat mais comme ni ma la ko waxee parti politique dafa am jamono boo xamante ni il faut mu am ay waxtaan mais aussi il faut mu am. ay décisions yoo xam ne nit dañ koy jël mais on a pris nos responsabilités xalaat ne lii moo gën ci réew mi lii moo gën ci affaire lii moo gën ci coalition